tëj bi ñu tëjoon université Cheikh Anta Diop juróom-ñaari weer euh, taxoon na étudiants yu bëri dal di jéem a tenté seen chance ci émigration clandestine Yankhoba Sagna mi ngi ñuy nettali ay étudiants yoo xam ne xamoon na leen bu baax te ci gaal gi lañu jaar. loolu Fass la euh, bu université tëjee booy amoon problème fu ñuy denc seen bagage parce que ñëpp dañu yaakaaroon ni c'est une question de d'une semaine de deux semaines ou maximum un mois malheureusement booy am ñoon fu ñuy def seen bagage ñi génne benn communiqué au niveau du COUD képp képp ku fa yor bagage am dans les soixante dix soixante douze heures nga dem jël sa bagage ainsi de parce que bu ñu tëjaatee campus bi mënatoo am possibilité jël sa bagage booy ñoo joytuma saraxuma ñu ne ma grand ah comme yow da ngay yëngu des fois ci côté courtage dañoo bëgg benn chambre ba situation bi décanté wu ñu ne ma woon un mois ma ne leen borom kër gi de boo leen ko ne un mois ngeen génn du ko nangu parce que loolu perte la ci moom léegi dangeen di noppi rek ñi gérer ko et puis boo leen génnee ma am ku ma leen dugalal mu doon ay booy ay six booy euh, ñett waa Tamba lañu mu am kenn koo xam ne waa Sédhiou lañu ak ñaar woo xam ni waa Ziguinchor lañu ñu bokk vraiment ci sama section de Ziguinchor ma taxaw ci nag à 72 heures effectivement ma utal leen chambre à fas booy tuutaa ñi ma doon fréquenté sama place des fois ñu manqué benn 5000 wala ainsi de suite ñu ñëw ma aal leen ak yooyu noonu. mais ma gëjoon leen dëgg une semaine deux semaine benn jour am ko ma ci woo ma gis numéro euh, Espagne la comme xam naa numéro yi ak yooyu noonu ma décroché mu naan ma xamee nga ma ma ne ko non mu ne ma man la jibi ma ne ko ban jibi mu ne ma mais grand ñun nga joxoon ma ne ko mais grand yéen keroog bu ngeen fi jaaree ba ma naan ba naan ma da ngeen am problème 5000 ma réglé leen 5000 yéen nag ma koy ñëw ba léegi déggatuma leen mu ne ma grand xam nga fu ma lay woowee ma ne ko non mu ne ma Espagne te fii Soumbédioune nekk nii tey fii la ñu jëlee départ. booy dañu doxante woon daw sport corté corniche yooyu noonu comme ñoom ay sportif lañu boo ñuy tombee ci gaal bi jotu ñu fay nag ñuy dëgër fit rek dugg gaal bi bàyyi force dem euh, tey yàlla may na leen yegg nañ ci jàmm ñu ngi Espagne vraiment génn nañ sa si camp bu ñu nekkoon maa ngi leen di ñaanal yàlla jóg bu ñu jóg dem vraiment na leen jig te lu ñu fa uti tam yàlla nañ ko fa fekk waaw mais c'est des étudiants tey boo xoolee Cheikh Anta Diop même université bu mu tijjee y a des milliers de jeunes yoo xam ne ñëwuñu lan la ñeneen ñi abandonné nañu ñeneen ñi dugg nañ ci cak-cak bi ñeneen ñi ñu ngi ci pari foot bi ñeneen ñi jël nañu géej bi dem na ñeneen dugg nañ ci mbéy mi par leur propre moyen donc fermeture université Cheikh Anta Diop bu mu indi jeunesse Sénégal kenn mënu xam lu mu toll lu mu indi si étudiant université Cheikh Anta Diop kenn xamul lu mu toll booy bëri dellu si parce que jël nañu géej bi donc am ñoo xam ne yegg nañ am ñoo xam ne des nañ ci géej bi des fois école lañ ci am diw demoon na diw yegg siwul même bu fekkee xamuñu ko mais xam nañu ni y a des jeunes yoo xam ni des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop yoo xam ne vraiment dem nañu. du rek sax ndax ci kàddoom lim bu jéggi dayoo ñoo jaar ci gaal yi. su may lim tey dinaa la ne c'est des centaines de jeunes yoo xam ne bokk nañ sax si suñu regroupement de diplômés sans emploi ñoo xam ni finalement xaar bu yàgg bi dafa mujjee doon lu métti ci ñoom. boo mënatuñu xaar état mënatuñu xaar seen parents yoo xam ni tam amuñu pour jox loo xam ne moom la ñuy déparé boo ko jëlee aussi phénomène bi lan moo tax mu ëpp doole diggante daaw ak ren c'est la fermeture di campus. il faut ñu waxante ko et puis encore bu nekkul fermeture campus bi événement yu fi amoon dafa yàq tablier yu bëri te tablier yooyu c'est des jeunes donc Université Cheikh Anta Diop mu nga xam ni tey mi ngi absorber plus de cent mille jeunes. au niveau national ñi jógee fépp dans toutes les régions nga tëj université boobu pendant huit mois booy dellu seen kër amuñu lu ñuy vaquer te ñu ngi fekk benn situation boo xam ne moom la ñu bàyyoon kër ga à un certain moment dañu naan est-ce que jàng jar na ko est-ce que xaar bu métti jar na ko est-ce que temps bu may toog ni université bu ma xar woon jël géej bi est-ce que les huit mois amul lu ma mën a apporter sama famille franchement régime bi foofu la fayre te dafa pousser booy jël géej bi boo tey géej bi cimetière la ci jeunes sénégalais yi. waaw xam nga si en pagaille am na ci ñoo xam ni vraiment yàlla muusal na leen dem nañu am ñoo xam ni dañuy waxtaan ak yow booy man su ma gisee sa gaal damay dem nga yaakaar ni ci ay kaf la ndekk dëgg la ci ñoom ba benn jour nga xëy ñu woola ñu ne la ah sa maa ngi Espagne maa ngi tel bërëb wala jotuma yegg maa ngi Maroc ainsi de suite donc malheureusement aussi am nañ ci ñoo xam ni des nañ ci géej bi c'est la loi parce que dem moom képp ku décider pour dem. ñaar la soit da ngay yegg soit nga des si géej bi am na ñu yegg bëri nañ nag ñoom ñoo ëpp fuuf ñoo xam ni ñoom ñoo des si géej bi mais am nañ si ay morom yoo xam ne ñu ñu jege lañu ñu bëgg ci regroupement bi ñu doon ay membre actif malheureusement au nombre de trois euh, dañoo des ci géej bi ñii licence lañ doon def ñii master keneen ki deuxième année vraiment maa ngi ñaan yàlla xaree leen arjana métti na trop mais kenn mënul juger nit Une, euh, je préfère des noms. parce que seen parents yi aussi peut-être du leen neex mais bëri nañ ci ñoo xam ne vraiment des nañ ci géej bi am ñoo xam ne xawuma leen mais information yi ñu arrivé mais ñu ma ci xam ñu bokk si ñu regroupement am ci au nombre de trois. ci kàddoom nag ñàkk xëy bi rek moo waral lii yëpp. migration clandestine mais ñu koy def lu ci ëpp ay ndaw lañu lan moo tax ñi motivé wu ba war a quitter Sénégal un pays moo xam ni tout le temps dañuy naan pays en voie de développement la. pays en chantier ainsi de suite ainsi de suite donc bu loolu waree am lan moo war a mën a motiver jeunes yi boo ñu dem lenn rek la chômage bu tar bi parce que jeune boo gis rek am na ambition pour suba mu am relève ci biir famille am donc booy toog sa âge dem de temps en temps ngay am ay frères ay petites sœurs yaay ak pap tout le temps ñu lay solliciter nga am âge boobu te mënoo ko faj en un moment géej bi nii moo la gën a toog kër ga di jaakaar la ak ñoom te doo mën a faj buum gàcce bi voilà. ñaata étudiant bëri na trop parce que yàlla may na ma ma nekk ci regroupement de diplômés sans emploi te ma bokk ci dirigeants yi depuis pratiquement cinq ans euh, partout à travers le pays dans toutes les régions dañuy dugg di weccante ak jeunes yi di leen di sensibiliser di waxtaan ak ñoom di xam lu leen di métti. lu njëg njaaga te état mooy njaag. mais ça me fait mal ça me fait mal loolu et puis euh, gouvernants yi c'est des responsables. la responsabilité incombe aujourd'hui particulièrement au gouvernement du Sénégal parce que cadre boo xam ne moom la war a jox jeunesse Sénégal pour ñu mën am espoir toog fii cadre boobu la ñu tegalul jeunesse bi su ma jëlee tey jeune bu jóg bu bëgg a lancer wu ci entrepreneuriat je je prends l'exemple des gars yoo xam ne ñu ngi autour de nous en commençant par moi depuis 2019 la ñu déposé ay projet au niveau de la DER boobu DER sax nekkagul au niveau du point E boobu mi ngi euh, au niveau de la VDN ñi constitué ay projet bancable ñi fay ci xaalis bu dul jeex ay cent cinquante mil ñi ñi fay ay deux cent mille pour ñu defal leen projet boo xam ni ñoom ci la ñuy yëngu peut-être du ku nekk moo mën a bindi projet am ñoo xam ne mën nañu bindal seen bopp projet mais malheureusement cette affaire des financements c'est une affaire clanique clientéliste boo xam ni gars yi dañu ko def pour caser seen booy di leen di jox xaalis ñoo xam ni préparé wuñu pour kii 2019 nit war na ko mën a déposer projet nga toog 5 ans woowuñu la defoo benn entretien ñi wax la ni sa projet bi ainsi de nii la fa war a demee ni la fa war a deme wala bu amee ay manquement ñu war ko mën a corriger loolu moo fi amul ñu toog de 2019 ba 2024 bi nii. ñi doog ñu woo par kenn kenn on est désolé financement bu nga déposé woon finalement xaalis amul alors que le président de la république en 2021 avait fait une sortie qu'il avait compris la jeunesse que maintenant dina injecté 450 milliards annuellement 150 milliards pour jagle ko jeunes yoo xam ni dañuy nekk ci entrepreneuriat ñun ñu doon un groupe légalement constitué depuis 2011 ñu am suñu récépissé am suñu siège ñi bind ay projet war ko soutenir ba léegi benn nit lañ ci financé ci projet yooyu noonu si parmi des milliers de jeunes dem nañu DER ñu recevoir ñu ñu ne ñu def leen liste indi leen ñu seen projet ñu déposé ko ba nii muy FONGIP muy muy DER ba léegi suñu projet yaa ngi fay tëdd bon gars yi nu ñu wàccee ba benn régime ñëw du euh, hommage boo xam ni war nañ ko mën a rendre. Bassirou Diomaye Faye le nouveau président dëmb dégg nañu discours mu doon discours boo xam ne vraiment dañu ko këyir à bras ouvert te ñu ngi ñaan discours boobu noonu na ci doxee mooy maanaam lancé na ne mérite moom mooy nekk à la place des militants donc jubal boobu noonu engagement boobu noonu bu mu jël ñu regroupement des diplômés sans emploi bëgg nañu ko ci gunge tey yaakaar nañu tey expérience bu ñu am dans le milieu ak proximité bu ñu am avec la jeunesse ñi xam jeunes yoo xam ni vraiment soxla nañu ndimbal soxla nañu financement te soxla nañu liggéey pas ñi xaar recrutement yoo xam ni tey c'est des recrutements yoo xam ni partisans des recrutements claniques euh, malsains yoo xam ni moom la gouvernement yi di fiy def ñun vraiment rupture la ñu woote ci moom. waral njiit yu bees yi war a saytu naka la ñu doon jëfandikoo 450 milliards de francs CFA bi nga xam ni nguur gi fi ne woon daf ko jël dugal ko ci xëyu ndaw ñi. na audité ces centaines de milliards yoo xam ni gouvernement bi nee na dugal na ko ci jeunesse bi te yeggul ci jeunes yi. nañ ko nañ ko auditer kenn ku nekk ñu xam lan mooy part responsabilité am lan moo tax jeunes yoo xam ne yelloo lañu financement ñi toog pendant des mun mënuñu jot seen financement ba finalement ñu mujjee xaddi jël géej bi dee ci géej bi soit ñu dem donc doon na loo xam ne métti nañu trop te président de la république mu nga xam ne moo fi toog. avec son premier ministre dégg nañu seen discours tey jeunesse bi nii espoir la ñu am moo te ñu topp leen massivement boo xoolee te ñu leen fal jeunesse bi moo leen fal parce que seen discours la ñu topp ñu bëgg a indi rupture rupture boobu noonu ñun ñu nga xam ne nous some une association légalement euh, conçue te gouvernement bi xam ko jox ñu suñu récépissé euh, defar boo xam ni président de la république bëgg na ko def mënu ko def sans ñun on l'appelle appel lañu koy lancé na toog ak ñun mu waxtaan ak ñun ñu jox ko si aussi des pistes de solution yoo xam ne ñun xam nañ ko parce que ñun ñoo gën a jege jeunesse bi xam nañ lan moo leen métti ti lu leen métti moom la ñuy dund lu leen métti moo ñuy métti parce que moom la ñuy dund au quotidien c'est très difficile c'est très dur te entrepreneuriat bi. tey nan la ko war a mën a accompagner di nga gis jeune boo xam ne bëgg na jël place les places coûtent mine de rien cent cinquante mille mais jeune boo commencé wul dara nan lay mën a nekk nan lay mën a joxe cent cinquante mille avec cinq mois de caution pour mën a entreprendre kooku c'est difficile beneen aspect bi mooy euh, le milieu privé le patronat privé dégg nañu ko tudd na ko le patronat privé tam dañuy injecter xaalis bu bëri ci ñoom te exploiter les jeunes la ñuy def au quotidien de midi à 14 heures jeune bu nga xam ne di nga ko jël pour ne ko stage def sa biir entreprise mu nekk fa de 7 heures du matin par exigence muy wàcc ay 16 heures ma ne prime de transport sax du leen ko jox heure añ dina jot ñoo xam ne ñoom la ñu embauché ci entreprise bi dinañu gën nii dem añ jeunes yoo xam ne ñoom ñooy def. tout le travail dans ces entreprises du ñu leen jox ndëgg njëg añ du ñu leen jox ndëkki du ñu leen jox dessert du ñu leen jox moyen de transport yoo xam ne moom la ñu war a ñëw te entreprise bu fi recruter mu ne la cinq ans d' expérience mais koo xam ni motivé woo ko d' abord ci stage nan lay amee expérience moo koy laaj cinq cinq ans donc chômage bu ngeen gis fii yëpp lu ko undu mooy lii patronat privé bi bu fekkee recrutement moo ñëw gars yi di recruter seen doom di recruter seen jarbaat yi di recruter seen ñes di recruter sax seen xaj yi excusez-moi du terme boo si seen mindaan loolu moo fi nekk donc ñoo xam ni am nañ seen diplôme am fi ay master am fi ay doctorat ñoom ñoo nekk tey si cak-cak bi ñoom ñoo nekk si plifeur bi ñoom ñooy jaay fëgg jaay ñoom ñooy jaay ñoom ñoo nekk si cak-cak di midi a 14 heures boo ci jaay madd bu ngay gis ni au niveau des ronds-points c'est des diplômés du supérieur ñoom ñoo koy def moom mi Yankhoba Sagna bokk na ci ndaw yi bind projet ba jébbal ko ay entreprise ba jébbal ko ay institution financière juróomi at ngi nii ba léegi dara. Euh, madame man ça fait bientôt cinq ans may daw ginnaaw financement bu dix millions imaginez tey bu jeune amee projet am ne par exemple dix millions laa soxla pour sama projet mu def euh, étude de plan bi yëpp étude de marché bi yëpp mu def ko mu ñëw soxla dix millions. nga yëkkati 3 millions nga ne moom nga ko mën a financer mais kooku est-ce que dugaloo ko son projet mi ngi ni liir nga ko xam nga ko gis nga ni kii état financier bi yëpp lii la laaj au lieu que nga jox ko 10 millions nga jox ko 3 millions mais 3 millions. y' a de jeunes sénégalais. Mhm. c' est partie de la population. yow jàppoo ne bu ñu la mosalee 3 millions mosal keneen mosal keneen euh, est ce que jàppoo ne moo moo bu boobaa nag. Mhm. sa sa xarañteef fa lay génnee. non kooku dafa dépendre ci secteur bu ngeen nekk. Mhm. xam nga bépp secteur tey bu ma nee multi service ci laa yëngu tey tey su ma soxloon 10 millions nga joxuma ma 3 millions mën naa adapté wu mais koo xam ni par exemple ci élevage la. koo xam ne par exemple ci agriculture mu ne la moom am na deux hectares yoo xam ne bàyyoo ma ko moom donc tey moyen d'investissement yu mu soxla pour mën a def lii dix millions la laaj nga jox ko trois millions trois millions bu ci gasee teen def ci forage mais trois millions jeex na. mais nan lay am mën a adapté waat ba mën a def ay ay tuyaux yoo xam ne moom la mën a kii mais bu ko ci investir boo paree day toog ba trois ans yoo xam ne du mën am loo xam ne moom lay démarrer donc fond de déroulement tamit dafa la ah, ah, kii projet boo gis dafa laaj fond de déroulement mais malheureusement je te donne un exemple d'un jeune mu nga xam ni machine de pavage la soxla machine de pavage bu mu defee étude bi mu war ko coûter dix huit millions gars yi ne da ngay uti machine bu gën a ndaw ba tey mu accepté. machine bu gën a ndaw bu ko calculer douze million lay am la la mën a gën la ko mën a amee ak accessoire am gars yi ne ko noonu neuf millions lañ mën a lañ la mën a jox ñi jox ko neuf million juste le prix de la machine les accessoires yoo xam ne moom la machine bi war a àndal accessoires yooyu amul ce qui veut dafa war a utaat yeneen 3 millions pour mën a ut accessoires yoo xam ne moom la machine bi mën a euh, àndal ñi financé ko 9 millions yi indil ko machine bi donc il faut mu utaat yeneen 3 millions pour machine bi mën a am accessoire fond de déroulement bu mu doon soxla 2 mille 2 millions parce que d' abord booy commencé pavage brique yu nga war a defar da ngay laaj camion indi la suuf suuf si tamit da nga koy jënd ciment bi da nga koy jënd pour mën a démarrer même boo amee commande doo mën a dem donc acheminement euh, pavage yoo xam ne moom ngay defar donc loolu tout ça là c' est des c' est des fonds de déroulement yow nga jox ko bi la valeur de 9 nga indil ko ko fii mu soxla accessoire yoo xam ne moom la war a def brique yi amul loolu. mu soxla un fonds de déroulement mu nga xam ne moom la war a mën a jëlee suuf indi joxoo ko loolu mais est-ce que fonds bu nga ko jox noonu est-ce que fonds bi du dikk mais boobu jeune bu gisee tey ku war a jënd machine am da koy jaay donc bu jaayee ba pare bu mënul fay la lay def bu gisee yoon Nicaragua da koy dem donc échappatoire la pour mu mën a rëcc ci euh, prison wala pression boo xam ne moom lañ ko war a mën a tegal te boo jëlee recrutement public yi Mariama Sarr moo fi nekkoon. ñun attaqué woon nañ ko moment bu mu nekkoon point E donc mën nañ nee ñun ñoo tax mu daw dem biir Dakar Mariama Sarr avait annoncé quatre cent quinze jeunes yoo xam ni moom la fonction publique waroon recruter mais lan la ñu constaté chaque jour ñu ngi gis ay nit yu ñuy recruter alors que amul liste amul officiellement un recrutement qui a été mais noonu la recruter recruter ba mu des ay ay ay ay. sur les 4000 presque ay 300 jeunes moo desoon bu ñu publier ñooñu officiellement boo paree ñuy publier 3000 places yoo xam ne moom lañ jël mais fan la ñu jógee fan la ñu leen jëlee nan la ñu leen recruter ak ñan ñoo leen recruter ak yan jeunes la ñu recruter c'est autrement dit c'est des militants à la place des méritants les non diplômés à la place des diplômés moo tax diplôme fii Sénégal. gars yi di naan diplôme amatu fi njëriñ di nga jàng quatre ans cinq ans nekk ko université avec toutes les difficultés des universités nga pare nga toogaat chômage ñu ne la inadéquation de la formation par rapport à l'offre mais l'employabilité boobu noonu a quand loolu pour tontu ko day yomb tey boo xoolee gouvernement Sénégal est-ce que am na école bu ñuy former ministre te pourtant nit ki day yor làmmiñam rek ñu yaakaar ne compétent nañ def ko ministre est-ce que am na école bu ñuy jàngee député loolu lan la du da ngay adapté wu mais ku jàng boo am univ yegg université am say lijaasa kooku am na liggéey boo xam ne ni nga ko jox ba pare du mën a adapté wu mais à quoi sert la formation à l'intérieur des entreprises mais nit ki même ko jàngee dans la théorie bu duggee ci entreprise benn réalité la fay fekk mooy pratique boobu noonu ñi taka kay jàngal mais nii ngay def nii ngay def mais ku jàng boo am master est-ce que kooku tey laaj na benn six de formation pour mu adapté dans une entreprise donc cette question dans de l'employabilité de l'inadéquation de l'emploi par rapport à l'offre c'est une fuite en avant c'est des fuites de responsabilité ñun loolu duñu ko nangu parce mën jël des bonnes décisions selon les bons sens donc kooku noonu ñun mënuñu ko nangu. ndaw yu bari nag gisuñu dara lu dul tukki ndax liñ leen gëmloo mooy ni Europe moo ko yor génne loolu ci seen xel yi nag du yomb ndax si njiit yi la war a njëkkee. mais la déconstruction doit commencer par nos politiques par nos autorités mais bu fekkee yow da nga nekk ak benn autorité mu nga xam ne yéen a bokk koñ bu boppam métier sax mu dem faju ji Europe. bu jabar jabaram waree wasin mu dem wasinee Europe yow mu nekk wetam mais nan la lay mën a déconstruire ban ban discours la war a mën a am boo xam ne war na la mën a kii man mi di wax yow gëwuma Europe man fii laa gëm te dama yaakaar ni Sénégal laa war a teddee mais nan lay teddee Sénégal mais à condition que état bi jàppale ma mais am naa un projet encadré ma jox ma financement nga suivre ma. bu ma waree am erreur nga ne ma lii ak lii ak lii mais un pays boo koy déconstruire noonu nga koy déconstruire par l'encadrement de sa jeunesse tey heureusement on a un tel discours mais est-ce que dina matérialiser wu moom la ñuy xaar donc dem Europe tey tey tey jii nii franchement bu fekkee situation bu ñu dund nii Europe moo gën Sénégal nan la Europe gënee Sénégal je te donne un exemple patent en 2019 j'avais un jeune mu nga xam ne man maa ko logé sama chambre à l'université début 2020 la jël yoonu Maroc yoonu Maroc mu jaar ci grillage yi dugg Espagne 2019 à tey ça fait moins de cinq ans il a deux terrains à Kër Massar booba léegi man mënooguma sam am terrain au village mais kooku noonu mu nga xam ni dé quitté na fi 2019 il a deux terrains à Dakar man mu ko doon gëmloo toogal mën nga fi tedd mu am deux terrains à Dakar mais un de ses grands frères mu fi nekk ba léegi mënul saa am terrain au village mais kooku du naan yoon bi Europe te moom noonu sama quartier bu mu dëkk da au village et dans ma région à Ziguinchor mais influencé na jeunes yu bëri donc nu mu demee am fi terrain ñëw takk soxna te boo pare mi ngi faj buum gàcce bi seen kër toj na ko tabax na ko mais kooku bu nekkee ak benn jeune bu nga xam ni te mi ngi yoroon boutique à Ziguinchor mais la lay def day jaay cak-cakam wala mu jaay boutique am day noonu day naan kii dem na mooy de cinquante tabax na donc affaire bi Europe la donc affaire bi Europe boobu noonu moo influencé booy bëri ba tey des nañ ci géej bi parce que ñoo ñooñu ni nekk Europe la lañ leen di wax fii nu mu métti métti moo gën foofu te effectivement nu mu métti métti foofu moo gën fii tant que changé wuñu politique bi tant que changé ñu système bu nga xam ne moom la suñu gouvernement di dem avec la jeunesse. mbay mi nag nekk secteur boo xam ne mën naa jox liggéey lu ëpp ci ndaw ñi buñ ko organiser bu baax. tey lu mën a absorbe euh, absorber les jeunes en masse ñëpp xam nañ ko c'est l'agriculture le maraîchage tey man j'ai eu la chance ma def un peu le tour du Sénégal dans le cadre du regroupement des diplômés sans emploi def nañu enquête ci cadre JICA mais bu ñu duggee dans la profondeur on s'est rendu compte que l'agriculture mooy solution bi mais agriculture boobu noonu solution bi fan la mën a kii il les pistes de production yoo xam ne état bi war na ko mën a def dinga gis jeune mu nekk village am di produire dina dem ba mu arrivé à terme de sa récolte malheureusement du gis ko koy jënd ou bien pour mu génnee récolte bi foofu indi ko ville c' des problèmes yoon amul. yoon yi au niveau central la ñu am Dakar et dans les capital régional mais dans les profondeurs des pistes de production amul l' tey boo demee dans le nga dem par exemple Birkelane bi bu gën a jege pendant l'hivernage da ngay gis des de milliers de litres de de de lait bu nga xam ne moom la ñuy tuur mais lan moo war a mën a tere tey dans ces zones ñi dafa ay unité de production ay unité de transformation mais arachide bi tey dañ koy bay boo pare lan lañ koy de lan lañ ko doyee mais lu tey lu Sonacos di di doyee arachide bi. mais du diwlin la saabu la ainsi de suite te luñ ci produire dafa ndaw donc notre économie est extravertie day lu ñu fiy béyee dañ koy jéegaat di comme encore dañ koy transporter yóbbu ko feneen donc lan ngay transporter yaa ngi transporter des emplois mais emploi yooyu noonu moom la jeunes yi di dugg tey ci gaal bi pour fekkaat ko foofu donc boo béyee boo pare mënoo produit fii mënoo ko transformer fii nga bàyyi ku jógee Europe ñoo jël ko mën ko yóbbu mën ko transformer foofu mais yow yaa ngi créer benn chômage sa boo jëlee tey la Casamance où j'habite rien que mon village le village de Kagit tey lu muy produire ci mangue au Sénégal mënoo xam mais boo demee heure bi nii nii nga dem par exemple période de mangue da ngay trouver suuf yëpp des zones. amuñu fu ñu ko denc koy denc amul foofu unité bu koy transformer amul usine jus amul usine de séchage donc mango yooyu foofu la ñuy nëb boobu dëkk ngay gis tey nag yi sax di choisir mango yoo xam ne moom la ñu war a mën a lekk. leneen lu nekk ci mbiram financement yi mooy guerre bu am solo te jéggi dayoo ba am. tey il faut ñu prêter oreille à cette jeunesse mu nga xam ni cette jeunesse assoiffée d'un changement d'un d'un renouveau d'un d'un d'un kii comment encore d'un cadre plus conviable à leur égard te gouvernement boobu noonu bu ñu jël ay décisions te woowuñu jeunes yi. am na fi ay association yoo xam ne am nañu expérience te xam nañu lan mooy métier jeunes yi nañ leen woopale donte benn 24 heures ñi wax leen ñoom expérience boo xam ne moom lañ ci am parce que nag mbir nag pour nga mën ko faj il faut nga dund ko te ñun dañ ko dund dañ ko dund fu mu gën a tare ci moment Covid bi gis nañ fi ñi jël fii ay lutteurs ñu yóbbu leen pale ñi subventionné leen ñi ñuy jàppaleen parce que seen lieu dafa taaj mais ñun ñu nga xam ne ñun ñoo nekk ci chômage bi pendant des années affaire bi di gën a tar ci ñun kenn woowuñu pale kenn subventionné wuñu kenn jàppalewuñu suñu location lu ñu koy dundee ñun ñoo ko xam te ñun ñoo leen gën a jege jeunesse bi nii donc luñ ci xam bëri na lool donc bépp décision boo xam ne war nañ ko ci jël nañu woo à table loo xam ne moom la ñu yàgg jàngat suñuy mémorandum ñi teg ko ñu ne la ah ñun gis nañu ni telle région lii mooy solution bi tel secteur lii mooy solution bi secteur agriculture lii la booy di jooy donc lii ngeen ci war a mën a def lii ngeen ci war a mën a yokk lii moo ci amoon lii ngeen war a mën a dindi ainsi de suite affaire intermédiation yi nañ ko génnee di nga gis jeune bu nga xam ni soxla na tey financement mu dem tey DER wala FONGIP pour ñu génneel ko financement bi gars yooyu di fay nekk dañ koy naan mën naa la génne sa financement mais mooy naa un tel pourcentage loolu dañ ko war a mën a xeex. te jeunes yi bëri nangu nañu ay pourcentage pour jël ay financement ñu nag moo ñu fiy bàyyi ba léegi amooguñu financement nga dem DER tey soxla financement ñu ne la waaye mën naa la génne sa financement mooy nan 5 pour cent te 5 pour cent boobu noonu dafa war a ñëw tegu ci intérêt boo xam ne moom la jeune bi war a fay sur le financement global mu fayaat 5 pour cent yoo xam ne moom la neexal kooku ci biir DER wala biir FONGIP wala biir institution de financement yi loolu mooy daw moo tax ñuy ñaan nag président bi auditer loolu te képp ku ci laale ñun am nañ ci ay tour nag ku ci laale nañ ko sanctionné ku lekk ci jeunes yooyu noonu nañu lancé appel bépp jeune bu nga xam ne defoon nañ ko chantage laaj ko 5 pour cent 10 pour cent pour ñu jox ko financement na jeunes yooyu dem dénoncé gars yooyu noonu gars yi jàpp leen teg leen ci yoon parce que xaalis boobu nag gars yi enrichir nañ si am nañ ci xaalis bu bëri bu nga xam ni dañuy sante jeunes yi sa financement war na génn vingt millions la trente millions la mais danga nga may jox cinq millions pour ma mën ko appuyer donc loolu mooy vraiment loo xam ne moom laa ci war a mën a lancer di ñaan gouvernement bi nga xam ne moom la ñuy teg avec ce président vraiment na yéen bi oyof ci moom. na yéen bi oyof ci moom espoir bu nga xam ne moom la jeunesse Sénégal bi am vraiment yàlla espoir boobu bu mu tas lu ñuy xaar ci moom yàlla nañ ko nañ ko jagleen yàlla yéen bi oyof ci moom mu oyof ci gouvernement bi bépp ministre boo xam ne tamit fal nañu la vraiment euh, yéen bi oyof ci yow. te nga bañ ko def sa moomeel nga bañ ko def sa affaire de famille bu recrutement jotee nga naan bàyyi ma jël sama jarbaat bàyyi ma jël sa doom sama doom bàyyi ma jël sama xarit ainsi de suite loolu vraiment bëgg nañu mu dagg te yàlla na Sénégal jëm kanam yàlla na espoir amaat ci jeunesse bi ba jeune bu bëggoon tukki mu naan ah Sénégal léegi am na dara mën naa fi toog mën naa fi tekki mën naa fi faj sama soxla mën naa fi teral sama yaay ak sama pap te fàttaliwuñu ba mu jéeme moom itam tante chance am si gaal yi ba mu waraloon ko sax ñàkk bagam. moo ma ñàkk loo woon bag parce que jotoon naa fay ñu xaarloo ñu xaarloo ñu ba benn jour guddi ñu woo ñu ñu ne ñu suba ngeen di embarqué boobu mu fekk man réussir naa bag bi premier tour bi pour war a jëm jàll deuxième tour. bu ma waree def deuxième tour bi mu tombé ci jour bu nga xam ni jour boobu la ñu war a jël départ j'ai fait le choix et ma bàyyi fi sama bag dem Espagne wala des géej bi euh, dem ma def deuxième tour bi dem géej pour embarquer ay 6 heures du matin malheureusement am ñoo xam ni dañu signaler gendarmerie bu Elinkine bi gendarmerie mu fekk ñu fu ñu doon embarquer ñi jàpp ñu yóbbu ñu brigade bu Oussouye finalement noonu laa ñàkkee sama deuxième tour ñàkk sama dem ma reprendre bac en 2008.